مميت أبا الفيض إلهي ويا مولاي يا أحمد تجانيا وذرو ويا مميت مميت إلهي ويا مولاي يا أحمد تجانيا وذرو السلام عليكم sunu mbokk ñuy seetaan ak duñu déglu ku dégg xasida yi jiib yu sama waa kër maam Ousseyn Aale Mbaye daan wax ngeen xam ne nag sunu kër maam Cheikh Sida Hadj woote nañu. kuy Cheikh Sida Hadj mooy ku yëngaloon përëgam ne man Malick bëgg naa fii ba góor saane ñang bu gàmmu jote tee na ñëpp ñoo fekk si ma Tiwaawan kuy Cheikh mooy ku ñu ne woon malik day amul bés Malick sàkkul bés. Malick wootewul ngir boppam waaye Malick nag ca dëgg-dëgg woote na ngir ki nga xam ne sunu borom moom la joxoñ mi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaye ndigal nag jib na jóge ci xalifa bu tedd ba di sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla may gudd fan naal yi nga xam ne naal na ko te jumaa Tiwaawan gi bokk ci yàlla nañ ko gunge ñun ñëpp incha allah teg caabi gi ci loxom mu ubbi jumaa yooyu waaye jaar ca rakkam di soppem di xaritam sës ci moom lépp di Hadj Malick Sy Maodo ak ki nga ki nga xam ne ca dëgg-dëgg mooy le recteur de l'université Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu di Serigne Babacar Sy Abdou sama sëriñ ak njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick si bi yëpp waaye nag ñoo leen yëgal journée bu mag di grande cérémonie de la Katmiya kañ lañ koy amal incha allah le vendredi nag 30 août 2024 woote bi di ko waral lek mooy bis bu ñuy waajal di def incha allahu taala ci ndigalu sëñ Mbaye Abdou Aziz Dabakh sunu papa niñ ko waxee léegi muy la 30 out fii ci ñaari tali muy Katmiya incha allahu taala ñu ngi ci woo mbokk yëpp di ci woo julli ñëpp ndax maam Cheikh Al Hadj Malick liggéeyam dafa yaatu. ni ñu koy waxe léegi dawaay di ci gox bi yëpp macha allahu taala union Grand Dakar xam ne fa la ñuy jaare waaye nuyuwaale sunu sëriñ sëriñ Sidi Ahmada moom tam at bu ne mu ciy gunge ñu tegal ñu nuyoo yóbbante bi ci suñu xalifa xaaj Mansour mu jotal ko ko waaye noonu la waaye tamit fédération yi nekk ci gox yëpp ak dawaayir yëpp ba sur fédération jamiya bu HLM ñoom di war ak Chérif Hamza mi nga xam ne lépp lu koy defal moom lañ ko defoon da ngir maamam yonent yàlla Muhammad sallallahu taala wa yàgg nañu ànd ak ñun ci jotaay bi bu ñëwee wattul ko ndax daraja ak maqaama ak mbaax gi ko sunu borom defal ñu ngi ko ci muy suñu sëriñ sëñ Abdou Aziz mi nekk rue Thiers nga xam ne tàmbale ba sax waajuram lañ seexoon ak moom kóllëre moo ñu digaloon ne 4 mai bi bu tombewul sax ajuma waaye comme innamal a'maalu binniyaati ngeen ko at ci yéene ji def leen ko ajuma nga xamante ni moo gën a ñoŋal seen organisation noonu lañ ciy duggee rek ak seen Cheikh Tidiane Tall mii fi nekk nga xam noon la ñuy jaar nuyu sunu maam sunu sëriñ maam eh, sëñ Bachir Tall xalif général famille Omarienne nga xam ne mooy sunu kilifa nit ñëpp te sunu jaaruwaay ci buntu boobu sëriñ Cheikh Tidiane Tall dalal nañu moom tam ñu nuyu ko woo ko ndax am na ci ci mbooloo mi njabootam guñ ko seeqal ñi nga woo ñëpp nag képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah ñi ngi lay woo rawatina nag jeunesse su ñaari tali ndax sëriñ Abdou Aziz Sy Al dafa am lu mu waxoon dañu woon tariixa bi li fi mujj na xale yi di lal mbalaanu wasifa mi ndax ñooy doon suñu relève kon nag macha allah buñ ko fekkee dinañ ko ci laal képp koo xam ne yor nga jeune ci sa kër boy ñew nang koy jital ñu tam xam xadar bi tam tariixa bi ñoo ngi ñaan nak tabarakallah ma sha Allah yalla nanti dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi wo jeppal ñaari tali grand dakar bop wagu ñaay ak jigéeni Senegal yépp yo nga xamanteni ñi ngi ci dakar ñi ngi leen di wo di wo nak sunu maire muy musa jibril wad mohammed jibril wad diko wo nak ci en en tant que gi mu nekk ci kër gi. ñuy dellu rek di ñaaxaat suñu mbokk jigéen ñi ndaxte jigéen ñi nag sëñ Mansour nee na ñooy cric te yaakaar naa ne yoonu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bii ñu soobu ah dañ ciy sant yàlla ndax mboolem luy kàllbaas ak foo mën a nekk ci biir Sénégal woo nañ la di ko jaare ci seen président muy suñu euh, sœur ki nga xam ne kii moom mooy Adja Thiané Dieye mhm. Ah, di wo tamit suñu ministre nga xam doomu Grand Dakar la te bëss bi buñ ko sossé ba tay mom mo nekkon suñu marraine di ñaan tamit yal nako yalla may fekke ba mu ñëwaat téwaat ci ñun di gërëm ñëpp nak di ci jital suñu bàjjan soxna fatsi dabax ndax daw dafa togg ak ñun ba bëss bi jeex sha allah wul di non lañuy santé tamit jigen ñëpp mboolem ku fi yor daayira daayira jeune Tidiane boole ko ci waa action daara ji ñépp ñu ngi leen di woo fépp fu man nekk di wax ashhadu an la ilaha illallah ñu ngi lay woo ci bés bi nga xam ne bésu cheikh ahmed tidiane sherif la yaatal nañ ko ba nga xam ne jàll na ay frontière macha allah di gërëm tamit suñu président mohamadou lamine jal di woo tamit jeunesse jeune tidiane yi nekk ci gannaawam xale yi jigéen ñi di leen ñaax surtout ci lépp lu kër gi di bañ nañ ko wattandiku ba kilifa yi fi ñëw di fi teew mm-hmm. buñ fi gis dara lu ñuy corriger mm-hmm. nañu muur suñu yaram yi ñun ñuy yaay jiite ko mm-hmm. ndax lu waay di tere yaa koy njëkk a bàyyi kon nañu muur suñu yaram yi ñun yaay yi ba suñuy doom mën a roy ci ñun ba bu ëllëgee sëriñ bi dina gën a kontaan gën ñu jàppale ci bés bi yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabil alamin journée baa ngi noonu ñu koy amal le 30 août 2024 ca esplanade bu ñaari tali groupe Katmiya nag moo woo Sénégal gi yëpp waaye nak ren nak dafa am thème bu am solo bo xam nak mom lañu la wa tànn waaw Mansour Mbaye thème bi moy lan xana nak moy ca deug deug le respect obligatoire des principes du soufisme dans la Tijaniya thème la bo xam nak nag na ci moment buñ ko soxla waaye nak damay dem nak wax leen programme ba bu 17h dinañ fa fa bu 17h30 ñu def nak li nga xam ne deug deug moy khadratu xadaratu juma bu ñu noppee am ñu tag sang bu tedd ba di sallallahu alayhi wa sallam ak bindum sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick waaye bu vingt heures waaw kan mooy waxtaan xanaa ki toog fu baayam toogoon Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy roy loolu maamam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anu mi sëriñ Babacar Sy nag Abdou moom ci boppam nag mooy waxtaan nag journée boobu waaye ku ci koy wettali surtout Cheikh Seydi Hadji Malick ba mooy kan mooy njoolu njool fuuta kooku mooy kan mooy Souleymane Ba nag bu baax bi waaye nag bu leen fàtte nag jàng ya ku koy jàng xanaa sunu xarit sunu soppe di kenn si kër gi di Mouhamed sàmb ak groupam kon nag sunu mbokk yi woote baa ngi noonu bu ko kenn tardé le vendredi 30 août 2024 ci esplanade bu ñaari tali wala ali wa sahbi aqmarin ufati wa man sabilahum salako rabbi